Khadre wax na ci coronavirus bi kam matukaay yi nga xam ne moom la ñu si war a jël waaye nag wax na ci lu jëm ci wàllum inondation yi ndax màggalug ren gi maanaam ci biir nawet bi lay na wax na ci lu jëm ci ñàkku ndox gi nga xam ne dañu koy faral di nemmeeku ci màggal gi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre nee na at mii nga xam xamante ni moo weesu màggaloon nañu jëloon nañu mesure barrière yi yéene kaay gi daal di xëy di ñu xibaar naan ñu waa Touba nee nañu képp koo xam ne na nga si maanaam nga jël say mesure barrière nga respecté li nga xam ne moom la waa kër docteur wax yéene kaay gi nee na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay poste postes médicaux danañu ko yóbbu Touba lu toll si juróomi téeméeri junni yu fekk juróom ñaari téeméer ak juróom benn fukk cay agent de santé yoo xam ne dana ñu leen yóbbu Touba yéene kaay gi dalal turbine nee na en tout cas li am ba des la mooy coronavirus beeg jaaba jonge gi nga xam ne moom lay jaaba jonge ci réew mi terewul waa Touba ñoom nee nañu danañu amal seenu màggal gouverneur bu Jurbel daat nay sàkku ci ñi nga xam ne ñooy màggal si ñu daan di vacciné wu Abdoulaye Diouf Sarr nee na lu jëm ci wàllum vaccination bi nañu ko daal di accéléré ngir nag bañ lawal li nga xam ne mooy jàngoro ji kaay gi du source nee na en tout cas li am ba des daal mooy Touba ñoom xamuñu na en tout cas li am ba des daal mooy Touba ñoom nee na ñu mbir mi daal dañu ko wékk nag ci yàlla sunu borom ndax Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre nee moo xam lan moo tax mu andi fi feebar bi te mooy xam nan la ko fi jëlee waaye nag li nga xam ne daal mooy ma yi respecte mesure barrière yi loolee moom danañu ko def ah yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu rapport bi nga xam ne comité de suivi force Covid 19 daan na koy génne coow lu bëri daan na jàmm ndax am na ci ay dépense yoo xam ne maanaam tey na xel rawatina Assome Diatta mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce xaalis bi nga xamante ni jox nañ ko ministre Assome Diatta nga xam ne moom la ko dépensé maanaam xel tey na sa ndax dañoo njort ne ay njuuj njaaj ak loo xóor maanaam daat na sa yam Abdoulaye Diop mi nga xam ne moom lañ denk wàllum communication moom tim njort nañu ne def na ay loo xóor ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu ko joxoon maanaam ci coronavirus bi yéene kaay ñu xëy fekk fa Mamoudou Ibra Kane mi nga xam ne moo jiite patron de presse yi nee xaalis bi nga xam ne Abdoulaye Diop ma ngi koy wax ñoom patronat presse yi xamuñu ci lan ba tey ji biir journal bi délibération mu ñu xam lan ñu kenn du Mariama Sarr Mariama Sarr moom nag njort nañu ne maanaam def na ay luqu njuur ak i tojaangi ak i giraawaale ci xaalis bi nga xam ne joxoon nañ ko ko ci coronavirus bi maanaam ay surfacturation la nga xam ne moo ci gën a doy waar mooy Mariama Sarr dañu koy tuumaal sax ne li nga xamante ni moom la jot a jënd maanaam def ko jënd ba pare séddale ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci am maanaam ay agent yi nekk ci ministère am la ko séddale yéen a kaay gi di xëy duñu xibaar naan lu toll si ñaar fukk ak juróomi étudiants yi nga xam ne dàq nañu leen ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jëmonu ci maanaam ñoom ñoo ngi toog di déglu Cour suprême yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy wax ci immigration clandestine nee na mbir mi ba léegi nii maanaam arrêté guñu ko ndax am na lu toll ci 83 convoyeurs yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci élection locale yi ak lu jëm ci wàllum inscription des primo ak jafe-jafe yi nga xamante ni nar na koo andil ñenn ci askan wi ak nag millions yi nga xam ne moom la ñu si nar le quotidien xëy dañu xibaar naan ñu primo votant yi ak carte CEDEAO yi mooy nag nekk contentieux bu njëkk boo xam ne gars yi danañu ko am te yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu koy fekk fa fédération nationale des boulangers yu Sénégal ñoom nag nee nañu semaine bii nga xam ne moom la ñu dëg ma la danañu dem ci ab grève yéen a kaay gii di vox populi ak les échos ak l'observateur xëy dañu xibaar naan ñu kilifa bu yaanamaara jamono ji dañu koy tuumal lu jëm ci wàllum njuñ njaaj escroquerie visa journal bi nee na dañu ko filmer ci loo xamante ni yëgu ko ñu koy jox xaalis muy jël xaalis yéen a kaay